ñàppal ñi seetaan kàddu Olla taalal yow nag may fontoo booy jënd kër gi doo tàggoo xaar ba ñëw duma la duma yu metti jaa waay yow kuy xët yow waay waay yow man ma lay rey nga naan maa yow koy xët danga foogoon man ko nii dóor laa baa du sa xarit boobu jàpp jaba ji di ko dóor moo tax nga foogoon ni maa ngi moo ma yam waaye yow may dem xew ma tàggu la nga tëdd fii di nelaw man itam ma dem tàggoo ma fenn laa wax nga nga may xët sama yaay bu yow ma lay boole dëbbkatu poobar bi nga doon dama ne la yaag sa yaay yëpp laay boole maa leen man maa leen ëpp a doole doo xam nga ne doo am doom ju baax ci dóor sa jëkkër sa ngandaay ngay mel ni pain au lait nii dama ne la yow dootoo ko dooleeti man ngay dóor yow ñëwal dootoo ko dooleeti moom dama ne la ñamal naa la benn xët foofu ngay taxa di wax te yow dama laa mooy sax nag. waa xaaral rek lay door a ngi ñëw ku la gën a ngande ku la gën a ñàng ëpp la doole laay dem takk ñaareel mu jàpp la dóor si biir kër gi ba bëgg dee comme yow faale woo kenn ku wax si kër gi nga dóor di xëtaate nii di gajje di màtte. dama ne la yow loo wax baax na foofu rek ngay taxa di wax comme que léegi dangaa commencé tàmm ñëwal gisagoo dara sax. ñëwuma foofu laa wax fii laay taxaw ti wax lu ma neex soo ma jubee ma daw génn sax maa ngi si bunt bi taxaw te yow tey jii doo fanaan si néeg bi wala man sama du fanaan si néeg bi dem fanaan si saal bi maçon bi nga doon sa loxo yi wow yi et puis di xët nit ñi nii sama yaram bi yëpp duggee ji nga ko dóor xët fépp nga xët sama faar yëpp loo tax mënuma màgg yow sama croissance yaa ko dagg yaa tax mënuma màgg dama ne la fii kenn daf fi du dugg sax laa la wax man mi mat naa fi lépp yow xam nga ne war nga ma sant yow ba ngay ñëw fii nanga tuuti woon man ma ngande njool si kaw nga ñëw lu ma doon lekk nga lekk léegi yaa man man ndaw ndax xont ma lay xont baax léegi xont yëpp lay arrêté léegi ay cere caax ngay añee yow ay mbiskit ngay reeree waaw ay mbiskit ay gerte caf ngay ndékkee yow il faut ma xontal gu bon ba ndaw ni nga ndawee woon ma dóoral ngay bëgg de yow faa mu jaraa sama kàddu ci kër gi te dóoral sama bopp waaw mais isaan yi da ngaa ngande moo tax ngay jekk fii ti ma njëkkante ti ma dóor xaaral rek dama ne la yow boo doon lekk àdduna ak li si biiram doo ngande ndax noonu nga ma samel dama ne la kenn tooñu ma man maa tooñ sama bopp ndax heure bu ma la àndalee ñun ma ba xam kii sa doom la xaaral sax booy waa koñ bi laay fay jox leen xaalis ñu agressé la dóor la ba ngay bëgg dee nga fa ma fayal la sama bopp yow waaw il faut que yow ma jàpp la dumalu la ba ngay bëgg dee parce que nga yeb nit ñi sa ngandaay yi booy dox si kër gi foo romb dëng dëng ndax sa ngandaay ak sa diisaay isaan yi kër gi yëpp ay fissure waaw lal baa ngi nii double lii la xoolal boo taxee soot watu lal bi ñi nga lal muy ndawee instant yi man cinq triple lii sama ko jëndoon yow du la jot ndax sa ngandaay bi a xaaral rek ngay profité aussi di dóor ma faar yëpp nga mokkal jàppal ñi seetaan kàddu wala taalal ñi nga koy fekk tiktok instagram pass facebook